أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة bokki jullit bokki taalibe yi seen mbokk Mouhamadou Fadilou Sy Touba moo leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général des Mourides di ci teg Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ak mboolem njaboot Cheikh Abdoul Ahad Mbacke gépp tey nag ñu ci ndimbal dikkee leen xasida goo xam ne gi dañ ko liggéey mu jëm ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu nekk ci biir kër Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye ci biir mbaar mii nga xam ne mas na maa topp ci ginnaaw Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bam tàbbi ci biir mbaar mii nga xam ne moom lañ nekk di waxtaanee tey fas fa yéene jàngee xasida gi ñu fas kon nag ñu fas yéene dikkee xasida gi bismillah qasidatun xajamiyatun li cheikh abdil ahadil mbakiyi baxin baxin abdul ahad najlul xadim balsas la feeñ yatas mu dem ilan naim baxin baxin abdul ahad najlul xadim balsas la feeñ yatas mu ilan naim ñetti fan ak ñett lawoon fa Jurbel ci aw kori gaaya di bindi sargal ñetti fan ak ñett la fa Jurbel ci aw kori gaaya di bindi sargal keroog la Bàmba yónnee daaray kaamil dinañ ko bindal téere dañ koy waajal nee baay la ci mbër ma yónni muy dem di ñëw weexal ga raw nay junni teraanga jaa waral ñu delloo ngurdu ba hadiyatan bamba ne moo di ba xarafi neen lay bañ mu takk fab leen la waxoon daawul di jëf ci ak neen moo tax mu dem ñu def ko daara yi kaamil bidiw ja fay na baal ja yal kaabal xabaar bi sëñ Moodu Kabir mum njàmme moo ko wax yaakaar ja dun ko wommi 1914 la feeñ fa Jurbel 1989 ñu ber njël ma wax la nag fam jaar ci wàllu xam-xam ak alxuraan ba dinu buusu ay xikam bamba ko jox seex xamsatun mu jox ko rakam ja seex alsaan mu yar jàngal ko falatare ba bind jox seex mustapha ànd ak sëriñ xamsatu jaxate xadu wafa seex mustapha jébbal ko sëñ mataar yar ci ndóodi muy xamlu baraw ay axbaar jaar na ci sëñ xabiibu sàkku xam-xam ba géeju dem daawul di faale xam-xam luy xeeti yiw moo xam ci wax la ak jëf def na ko lillaahi lu bon daawu ci kaf sanc na fi daaru defar fi aw nit sàmm jofal sard bi yaaka rëy fit totaf sa sin nenan la sos tuubaa dasas mu yeesalaat xokaas duuna xajal ca xadu sasin mu def fi daaray kaamil yokk jumaa ji xatosin mooy kaabal daarul xilaafati di kër seex bamba moo ko defar jatas kili saadiq ba ñaar fukki hectare la ak ñeent ca xatosin cité bi dootu lënt centre de santé hôpital ak marché moo ko defar baqiya duñ ko forcé Cheikh Baara Jenn la ko sas mu miir ko ca satosin na yàlla buur gërëm ko corniche wa garage autoroute sandarma ak jullikaay forage courant ak xorma lim fi liggéey maniisu ko wayaale ma wax la waataay wa te naa saalaali ci nitti fan kori la génne tuubaa war ca ba dem belel cey ba bam ne jalañ tuuba belel ñëpp sawar ndekete nar na joote jiiwaaya wagar nit ak juróom benn la donga ya sant gërëm ñaanal ba junj mbir ya yaa hajaban keppaaru néeg sëñ baara la woote woon xuréeje sibtu jaara mayluus bu ñuul for ak losol ak mbaxana dal ne jalañ sëñ seexu naa ne yegsi na mayluus bu ñuul forag la sol ak mbaxana dal ne jalañ sëñ seexu naa ne yegsi na bu kenn ñëw fi man di jàmbat bàq la ji woon waxtaan wa maa ne bokk yaa waxshatan li faqdi faxril xawmi almoominiina xan adan walaw mi fukki fan ñenent bis bay altine diggiw bëski la ne mes yéem na ku ne ci ñetti waxtu nee la dem ci guddi tuuba belel xaar yàlla dun ci xaddi moo ko waxoon ci làmmiñam may dégg ci ak mu jëm belal bul weddi dëgg ahmadu haada ma ca yónni boobaa ba tax ma gis ko xalanan mahbuuba guddi keroog sëriñ Sohaybu ñëw na faa ànd ak sëriñ Habibu Mbàkke Xad Wafa ñu woolu sëñ Xaasa mu ñëw ak docteur mu xool ne mbër ma dem na yàlla mooy buur sëñ Moustapha Silla yoroon caabim ba te kenn ne dem na ngir yaram ba Cheikh Moustapha Basiru ni bam fa defoon fala fato ca yàlla mbir maakar yun Cheikh Abdou Khadir Mbàkke moo ko ñaanal guddik talaata fàllu see koy saabal bisub keroog naqar wa daj na Sénégal ba bitti réew inna lillahi zil jalaal ku boole yoon wi takk niw say ba kenn du bus mu fax di gonte kay xëy moo jaa gàddu nit jëndiy mbaar di séddalib dund ba dun xalam sabaar lim joxe ci wataaki kër ak soxna yóbbu ko Makka lim ko doy na mihna patrimoine bam daa fi sàmmal Bamba waa jukkoon na ma ñaay mudur balamba gëstul xomar konte nga xam najlul xadim abdul ahad nihmali diinin alxawim taxawlu naa xalan nabi faxril kiram bil ali wa sahbi salatu dil anam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin muhammadul fadilu si ibnu sëriñ moodu xadi ibnu sëriñ malik basin si fii ci tuuba kër cheikh abdul ahad mbàkke gi ci ji wasalaamu aleykum wa rahmatullahi